gis nga numéro oto sax nit liggéey na ci nit. Ah. yàlla seede na ko loolu laa nit def na ci nit mu accident. dëgg la xam nga ki ngay jeex gisoo ko. mu ngi mel ni oto bu la romb nga koy annoncé police looy wax. numéro tel tel police du ko xaar waaw boo koy annoncé jinne loolu ngay def rek. loolu laa bëggoon nga ñamal si nga ñamal si ay tuuti <laughs>